dina xaw a jafe parce que dima ko wax ne man nii la belaa mhm. waaye da euh, euh, euh, yow yéen yow mii Lucien Baas ñooñu le mhm. kii nekkoon Thiès waay la ba mendi mhm. dama parce que yéenay suma modèle fii ba ngeen nekkee la ba dama guna dama séminaire yéen lay tiitaru ah kañ jama fongoon naa ko te sax buñ koy rob bu ma ko yëgoon dinaa dem ci de jam waaw Dans mon autre ami, euh, on, parle en lui, parce que de alors tax mu dugg ci ci politique que politique politique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

Euh, taxawayam ci MFDC ak ci réew mi loo ñu mën ngir ñu gën koo xam. prison euh, civile fii. Hmm. dem jàngi mais dama ko daan def booba booba nag moom sax ma ma ne ko ah, yaay mais bi ma may def. Hmm. ma jox mu mu ko. ko la. loo xeeb ci la politique. maa du dee nga doog regretté mu ne ah man de lan ko nag waaye itam dafoo dafoo nga bàyyi ba sa cousin see ngor wacca nguuram dem te keneen ñëw remplacé ko ndax su nga def lii oh, parce que boo ko doon jimaanu see ngor ah du du rafet. du dem <laughs> ko bokkam eh, ci famille am daal eh, trouble Sénégal waaye nag eh, Abdou Diouf nekk nga ne yaa jëmakul yàggul ca prison mu libéré ko. moom itam gën la Abdou Diouf. Mhm. parce que bu ko bàyyi fii dañ ci wax ah ah mu libéré ko. Mhm. itam ah, ñu ne ah ndax am bu baax lañ am Abdou Diouf bëggul caaxaan bëggul ñu boole diine ak ak yeneen li waaw waaw ah, ah, moom itam nganda la ci nganda yi wax ni wax ngir la wax di yàlla. Mhm. ndax mus nga ko jéem a euh, hmm? ko jéem a pour mu génn ci li mu nekkoon. cest la dire man de man de ma ci maire bi fii euh, Rogos.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

ci euh, parce que bala balaa muy def politique yemakul labe la woon mhm. te wax dëgg comme labe yëpp daan na mees plus que ça régulièrement gis naa ko ma demee Casamance ci raw saaña muy jàng saple bu labe demee ma ba ci ngoon muy jàng saple te kenn àndul ak moom ak kii diinam du caaxaan mhm. parce que su dee dañ ma yóbbu ci jàng saple dawat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 alors finalement ay relation ak pouvoir politique bi fi nekkoon Abdou Diouf ak ngouram euh, lan nga ci jot xam euh, négociation yu bari amna mom mo moo euh, peut-être principal interlocuteur bu bu état bu Sénégal. mo waxaat ma waxaat lima ma bant mooy. Mhm. Abdou Diouf mo bëggul ci dundam dal ñu ne ko lii yaa ko def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

ni mo bokkoon ci poli politique bokk kaso daal neexu ma motax bama demé bi demee di jànga mees foofu ci prison ci Dakar mhm. mané ko yaay président mees bi mu jitu mees bi mhm. ma ak moom ba mo pare ma wax ko né franchement fi nga tollu fi nga tollu ci sa euh, génération euh, politique ndax jar na ko yaakaar jaru ko parce que ñom milicien Baas euh, Thomas Mendy lui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

la religion dafa feebar lan la mun indi ci fi do xam ñi fi nek mu ngi ko def mhm. politique baax na mhm. waaye am nañu ko moom labe ci sa sacristie ci église moy mhm. walam la l'arène politique n'est pas son domaine am nañu ko toujours la politique c'est pas pour la Diack fekk saa suutaan bokku ci Mhm. alors euh, fi abbé kun bay ñu MFDC abbé Jacques bo amon leen di denk un message un euh, conseil. Oui, su dee euh, engagement politique là. Mm. ñoom nous. baax ci ñoom. Mm. mané ko nous. waaw la ñoom ñoo ñoo xam liñ gis mm-hmm. nous.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 يلنا لين يلا بارك سما ولو بودي ya, لي يلنا بومو يا خليل باغي لي ماي واخ جيف جيف جيف ابي جاك kon mbokk yi augustin jamakun senghor mi ñuy waxtaanee tey te abe jacques sekk doon indi léegi ay seede ci moom jàppaleen ni ab prêtre la woon euh, bu judd atum euh,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 directeur du euh, séminaire moyen Notre-Dame de Ziguinchor euh, ci atum 1972 ba atum 1975 ñetti at la fa def mom nak euh, yag na xex lool ngir indépendance bu Casamance ndax abbé ci atum 1900 82 mo dal di nekkon ci bopp mouvement des forces démocratiques de Casamance ñi nga xamni ñom ñoom ñoo tàmbali bi ngir euh, Casamance mom bopam bobé xex taxoon mom abbé Augustin Diamecoune Sengor ñu tejj ko ñaar yoon ci kasso diggante 1982 ak 1987 ak diggante 1990 ba 1991 gannaaw nak ay waxtaan yu yaatoo yaatu mu dal di xaatim ci turu MFDC lepp lo xamni ni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 ci wàllu politique ak ci wàllu diine euh, ca Casamance ndax tey kenn du tudd Casamance tuddu MFDC te tuddoo Abbé Diamecoune Senghor kon ku jara waxtaanee la ngir ñu gindiku bu baax a baax euh, ci moom ak ay mbiram